ay sàcc lañ yoo xam ni xaalis du jaar ci banque ay liquidité la ñuy recevoir ñëpp ay milliardaires lañ nekkul kese Farba Ngom lañ jàpp ak ay milliards déedéet ñoom ñëpp Amadou Mame ay milliards la yor mooy président assemblée nationale Muthiou Faye ay milliards la yor ci këram boo demee bango mi ngi ko miine am na chambre boo xam ne dañ ko climatiser jël xaalis bi def ko ci ay paquet paquet paquet muy jënd ay hôtel ak kër jàmbur bu ñu euh, abandonné mu jënd ko lépp tout ay milliards la ñu yor ak ay milliards yoo xam ne cash may ñëw nag ci Lat Diop ak di ñëwaale ci Amadou Ba man leen Lat Diop bu mu ñëwee Lonase da doon jéem a def benn mainmise récupérer Lonase ci loxoom bu mu ñëwee il a trouvé là mooy waa XBet yi ñu ngeen di jouer moom mooy paris sportif euh, internet bi. donc Lat Diop mooy société paris sportif 1xBet ak ak sunu bet ak yooyu ay milliards nag la maguyee fële nga xam ni moom mooy LONASE yéen xam nga ne Lat Diop directeur LONASE kese yor ay milliards géejawaay di tasaare xaalis bi jën moo fi jëndoon clé USB buñ ko ne Ousmane Sonko euh, am nañ vidéo 10 millions mu jël 10 millions cash jox ko boy million. dóor ko ba légui ni la Diop moy borom millions yi lepp nak moy boy yi joué XBT yi ñom la donc la bu mu ñëw dafa fekk Abel Si borom XBT Abel bu baax Abel Si borom XBT bu mu Abel Si recevoir fekk Abel Si contrat et tout ça un partenaire mom mo PMC partenaire PMC mu dind ko fa. ñu teg fa au profil de sunu ñu am ay sunu béet xbet one xbet béet yi ngay dégg yooyu yépp ay benn sénégalais ñoo nekk ci ginnaaw di dóor kese du naar du tubaab ay sénégalais ñooy dóor ay milliards yoo xam ni ci ay saak lañ koy def di ko génne every day all day Abel Sy rakam tudd Chérif Sy Abel Sy moo ñëw wax ki nga xam ni mooy laat Diop xamal ko ni affaire bi ay dil la boo bëggee mun nañ liggéey Lat Diop d'accord ci loolu mu miine ay booyam jox leen ay contrat fictif bu ñu ñëwoon moom ak Abel si ñu signé seen contrat ci affaire XBET yi jël ay seen point stratégique yëpp teg fa ay nitu Abel si ak ki nga xam ne mooy Lat Diop ba am mais mise Lonase bi am ay ibrahim Ibrahima Ndiaye am Abel Si nga xam ne partenaire la nekk du partenaire Lonase la nekku Lonase de liggéeyu Lonase partenaire Lonase moom si boppam mu placé fa ay nitam boo leen xoolee gisoon ngeen ko ci journaux yi fan yële passé comme dafa sàcc ay milliards mu finance suñu journaliste yi ñi ñëw di wax naan Lat Diop gagné na euh, audit audit bu ñuy def Lat Diop euh, 266 milliards de chiffre d'affaires <laughs> loolu suñu que ñu ko quoi Nan la c'est le meilleur Amna milliards de chiffre d'affaires Il ko fofu quoi ndaxate la Diop mo leen ñom ñep la mo paqueté ci ci liquidité bi jox leen suñu dul yeewu di lire journaux Sénégal akama euh, torture mental la ñuy dund torture mantal ñi yow di lire journaux sénégal yi ñooñu ñu kenn gënu leen nekk ñu feebar boo xoolee bu baax ay torture mental lañu ñu parce que dañuy dem ba lu ñu gis dañ koy gëm te foofu fenn kese la ay journaliste lañu fenn kese lañ leen jël di ñii dañ leen a fay ñii ñii liggéeyal ñële di leen bindal ay ñoo ñu torture mantal ak physique bu ñu am sax yàlla na yàlla yërëm donc laaj boobu il y avait en 2022 266 milliards de chiffre d'affaires mais bénéfice bi xam nga calculer 3 milliards Nous, avons ko affaire yi des partenaires yi bénéfices. bénéfice 3 euh, euh, milliards la ci imagine toi 266 milliards nga ne chiffre d'affaires ñu lepp lepp lepp nga ne bénéfice milliards la bu mu fayé partenaires et bu mu en 2023, il y a 12 milliards la bénéfices. am bénéfice milliards Nous soxla 16 milliards ñu am gabu 4 milliards la Diop gabu 4 milliards la bayé milliards té gaay ñom def def dura booy dura boobu noonu nga xam ne fiscaliste la def nañ audit bi jàpp nañ laat ne sàcckatu milliards la ay milliards la sàcc Lonase daf ko bàyyil gap de quatre milliards la laat jóob bàyyil waa Lonase gap douze milliards la fa bàyyi douze milliards de bénéfice deux te Lonase fa moment boobu li seize milliards lañ soxla woon mu am gabu quatre milliards lu fa yu mu fa bàyyi ñoom ñu créé fa ñoom laat créé fa suñu suñu suñu béet créer ay seen entreprise léegi nu doon def moom mooy entreprise yi sew sawaan yooyu ñu créé foofu ay sunu beet ay ay xbet ay wan xbet yooyu yëpp nag def seen plateforme yow yow mii di jënd sax du direct de ci plateform bi ngay jaaree plateforme yëg récupérer xaalis bi bu ñu récupérer xaalis bi lu si des ñu rawale ko lu si des ñu récupérer ko buñ ko récupéré nee naa leen moom la ak Abel Sy ay milliards la génne liquidité Abel Sy moom mooy jox rakkam Chérif Sy Abel Sy mooy jox rakkam Chérif si Chérif si jël xaalis bi dugg ci oto ñu def ko ay liasses d'argent ay liasses d'argent jël xaalis bi chauffeur am moom chauffeur am laat moy récupérer xaalis bi moy dem gisenté si shérif si abel si moy jël bi def ko ci ay suis paqueté def ko ci ay valise d'argent bu dem ba golf chauffeuru la bi génn ñu jox ko suis bi mu ko ci auto la ñu ci paquet d'argent lañ ko liquidité 10 000, 10 000, paquet paquet paquet paquet paquet paquet paquet paquet Mom, ak ki nga c'est mom, euh, Abel Si borom XB, le Abel Si moi, xamal ko ni bu bénéfice man ma jël sama wàll jox la sa wàll mu bool si la ko booleeg chauffeur bi moom tamit moom abel si jël rakkam muy shérif si bu jëlee affaire yi jox ko shérif si shérif si jël liquidité bi yóbbul ko chauffeur laat laat moom jël xaalis bi ay milliards loolu moo tax mu bëri coggu moo tax laat jóob bëri coggu golf si dëkk taxawaal bay gars yi du ñu liggéey xëy ñu gontuñu te ak ngor di dëgërul donc pour prostituer loolu leen dafa yomb pour prostituer loo leen dafay yomb moo tax ñu bëri ay cogg donc la laa Diop dafa daane LONASE XBET yi ngeen dégg Sunubet directeur Sunubet rek dañoo créer ñoom seen bopp ay entreprise foofu créer seen entreprise même Bobini Bobini directeur Sunubet au lieu LONASE jënd ko déedéet LONASE day jël xaalis bu ay milliards jox ko directeur Sunubet Nous ñom abel nous légui dañ leen jëndi Bobini. à la place de bobine nous avons jënd 1 milliard Nous avons jëndé 6 milliards Nous facturé l'onage 6 milliards Nous avons bobine mi dem jëndé bobine 1 milliard buñu ñëwé mom ak abel abel ci abel ak la djob ñu créer sen entreprise fictive ci est di forcer bobine

ñu am bénéfice ñu jël bobine boobu noonu indi ko léegi ci trois cent francs laat ñëw jëndee ko encore ci kim ko jox pour mu jëm jënd ji si jaayee ko jëndee ko six cent francs jaayaat ko Lonase mille francs jaayee ko Lonase est-ce que comprend ngeen li ma leen di wax dama ne laat day jël xaalis jox xaabel si mu dem jëndi bobine mu jënd bobine yi bu jëndee bobine yi léegi moom Abel day ñëw ne da koy jaayaat Lonase laat jëndee ko 600 bu jëndee bobine bi 600 moom jël ko moom ci xaalisam moom jël ko 600 jaayewaat ko Lonase 1000 francs jaayewaat ko Lonase mille francs day jël xaalisu Lonase jënd ci bobine. jëndaat ko ci kooku noonu mom moy abel si trois cent yokkaat ci six mel ni ku ko jënd jaayee colonnage 1000 francs lepp nak ci digënté bobu ay entreprise fictive lañ fa créé suñu béet x béet one x béet nangam béet ku ñuy créé seeni i béet béet taxaw diko passaté paasante jël xaalis indi fi indi fee indi fi indi fee génne ko en liquidité paqueté ko dugal ci ay sac d'argent dem seddoo ji ñu jël ko nag après jaay ko revendeur yi lan moo tax problème bu jëlee Lat jóob Lonase lii la dafa dóor Abel si ci di quatre cent million problème mu quatre cent million lañ amoon Lonase neexatul woon seetlu leen laat bu mu ñëwoon bu muy ñëw di passation de service ak Doura Balde ñu koy yuuxoo wuub wuub sàccaay wuub wuub sàccaay wuub wuub waa Lonase ci boppam wuub wuub sàccaay moo tax Doura Balde bu mu ñëwee naan day def audit <laughs> problème bobu mo jëlé laat me dafa que fokalé faux. 400 millions le mujjé dor abel bobu non nga xam di ñu doon ñaar di mu ko millions 400 millions lako ko sàcc laaj commencé di abel si bobu di bloquer ay chégam di bloquer directeur sunu abel si bobu di ko ay chèque du ko ko jox ak kuru tax am dañ leen dooleel Macky Sall wàcce ko décret dàqe ko en attendant ci la ko def ministre de sport alal gu ay milliards la fa sàcc ay milliards quatre cent millions moo nekkoon problème mu Lat Diop ak Abel Sy quatre cent millions la ko dóor ci séddoo boobu ñuy séddoo liquidité bi cent millions la ko dóor ñu guerre boobu moo fa amoon guerre interne moom moo tax laat bu mu fay jógee dañ ko doon saagee di ko yuuxu sàcce diko ko yuuxoo sàcce yi ay fonds la yo xamni pour ay fonds politique la sàcc gu metti la fa def moy paris sportif en ligne ay béet yi ngay dégg ay sunu béet ak wan x béet ak euh, x béet ak béet momo tur yoy dañ ko fay dégg ay béet yu dul jeex lool lepp nak ñom la won ñoo placer seen i pion foofu noonu créé seen fake entreprise yu téwul fenn di jël xaaliss fi ni di jël melni lonage moy jëndi jël ñu jël ay débloquer ay milliards presque ben 100 milliards dem jëndi ben affaire indi war jaay ko 200 milliards jaar la ko ci seen entreprise jaay ko 300 milliards bla excessif lonage day don 800 milliards wala 1000 milliards ñu seddo nak bu ko défé abel si jël alal gi dem jox ko rakam shérif chérif shérif si jël dem gisi chauffeur là, Abel Sy woowanteeg euh, La Diop ñu ne ok maa lay indil 1 un milliard wala lay millions wala millions Nous, d'accord. après ki nga shérif Abel jël bi def ci def ci ci bi dem la chauffeur bi génn encaissé xaliss bi paquet paquet yi ci ci ay sac ñu dougal ko mu la récupérer ils sont très liquides très très très liquide Tek sen bay amul sen yaay amul Sen bay ci torox tàng la leen dundalee sen yaay ci torox tàng ak jaay ak ak tirer le diable par la queue lañ leen dundalee sen domi yi politique kessé ñu don ay milliardaire milliardaire juste un directeur de l'ONAS multimilliardaire Qui jënd un clin d'œil benn clé bu ñu la wax ni clé vide nga ko dix millions de francs CFA clé vide nga 10 millions de francs CFA donc audit bon non mini ngi fi ba des laat dafa daane des dafa milliards chiffre d'affaires 266 milliards chiffre d'affaires bénéfice bi ñu 3 milliards la nee mu ñu des lan employé partenaires <laughs> c'est 266 milliards 3 milliards c'est ci gars yi 266 milliards. Vous avez dit que vous emploi à l'ONASI, vous partenaire, 3 milliards, de avez 3 milliards. C'est ce que vous avez dit, en 2022, la, la def un chiffre d'affaires de 266 milliards. Ce que bindi fofu nonu dafa bindi ni lepp lepp bénéfice bi bu mu un bu mu fay employé fay partenaire 3 milliards 3 milliards milliards yep la la tsaj bu ñu fayé partenaire yek fay employé lu 266 milliards par 3 milliards est-ce que vous vous imaginez 266 Doura Balde Mohamed Mohamed je Balde xam na limay wax on xam na bu baax limay buñ défé enquête interne que je wax ni c'est des enquêtes internes yo xam ni Doura bu ko défé li la enquêteur yi génné ni li journaux yi doon wax noonu deux cent soixante six milliards de chiffre bu ñu ci génnee bénéfice trois milliards ñu ne ko lan moo tax mu ne maa fay employé yi fay partenaires yi trois milliards yi moo moo moo ma ci dese. loolu moo nekk deux mille vingt deux la laat loolu la fa dóor ci ay milliards moom ak Abel si ak rakk Abel si shérif si ak chauffeur am nii la ñu séddoo milliards yi. Je ne sais xamni mi ngi ak vidéo yi vidéo ni d'argent mais bon, ko ba dafa mais won ma gis vidéo liage d'argent ay liage paquet paquet ni. ne la borom doole ni, borom dafa ben genre garde corps borom mais bu ma portable je ne ma pas ma gis non c'est incroyable Je ko mais liquide nee na ko ah, man maa doon ànd ak chauffeur ci chauffeur am chauffeur am waaw bu chauffeur di génn dem jëli lu ko shérif si di jox man mi lay àndal man maay ànd ma ne li waruma woon sax jël dama dama jël vidéo parce que munoo ko eh, c'est incroyable ngay gis gars yi paquet de milliards d'argent yi ñuy dajale munul nekk c'est des milliards la gars yi yoon ay milliards Je affaire de la mafia. Il y a des milliards détournés. 100 fois, ni loi. L'année 2022, 2023, 12 milliards de 2023, il 16 milliards de travail. Donc, il faut a 4 milliards. L'année 2023, 4 milliards, 4 milliards de travail. ak 400 mili millions yu mu am problème ak Abel Abel si mooy borom sunu beet ak si beet kon di wax sénégalais yi nga xam dañuy jouer ay longages naan ay naar bi ngeen di dund amul naar de Abel si moo fa nekk. te Abel si liggéeyu lonage mooy seen partenaire mooy borom sunu beet borom x beet mooy directeur ya liggéeyuñ fa ay partenaire lonage lañ ñoo ñooñu ngeen di liggéeyal Abel si ngeen di liggéeyal Dura Balde ngeen di liggéeyal. bi nga xam ne day jël ay milliards jamono jii commencé di ko yóbbu fële naan day xeex day wut bastion fële nga xam ne moom mooy euh, dëkk Mame Boye Diao ne da koy xeex ay milliards ngeen di liggéeyal ay nit yoo xam ne ay sàcc sax international lañ yu fa toog di jël ay paquet liasse d'argent liquidité di ko yóbbu seen kër yi naan naar ban naar la Abel si naar la shérif si rakkam bu mu bokkul bokk ak nday baay liggéeyu fa dara ñu koy jox xaalis muy dem di yóbbul chauffeur di yóbbul ay garde corps ngeen ne ay naar ngeen di liggéeyal wala wala ay tubaab fekk yéen ngi liggéey ñoo di jox xaalis bi ay politiciens sàcc ñuy ñi ñi jël alal gi diko rawale di leen ko joxat ngeen doon seeni i non mais <laughs> gis nga cercle bi dafa vicieux doole bi moy tok di wut lu mu lekk ñu dem dem ca LONASE ba jouer ñak xaalis bobu gaay jël ko récupérer ko seddo ko koku retourner mom ci bopam ñew di leen ci joxat ñuy tag waaji ji non xaalis bi moy def ni moy def ni ki ci jël tuuti joxaat la nga koy nga nga mu jaral la ngay saaga nit yi di yuuxu naan noo jàmbaar la fekk yow xoolal yow li nga joué li mu lay jox yaa ngi koy joué mu koy récupérer jëlaat ci tuuti joxaat la ngay <laughs> non <laughs> c'est incroyable ce qui se passe dans ce pays ay dinaa gën a ñëw ci affaire XBET bi ba mu lar naññ naññ naññ parce que deal bu garaaw la nag ay deal bu garaaw la entre laa Diop son chauffeur euh, Abel et son frère shérif si maa ngi ciy ñëwaat ñii nag ñoom Abel si nag Amadou Samba Kane moo leen fi indiwoon woon neddo ko bandum déglu leen baax x béet ak sunu béet c'est du neddo ko bandum c'est pas de du naar ak c'est pas de lannerie c'est du neddo ko bandum Amadou Samba Kane moo leen fi indiwoon woon seeni mbokk bu neddo ko bandum bu saf sàpp la ñëw placé fa Abel si Abel si ñëw mu indi ko fa comme genre bu fukki dërëm mu ñëw indi ko fa comme partenaire Lonase ñu commencé ubbi ay sunu béet ak e xbéet ak e wan xbéet ak e moom moo béet yooyu ñu teg ko fa c'est du netto ko bandum moom it moom Abel si mu indi rakkam bu mbokk ndey ak bàyyi di shérif si c'est du netto ko bandum bi laat ñëwee nan day jéem a defar Lonase gars yi xamal ko ni fii mafia amoo fi nekk netto ko bandum la ñëwal ñu liggéey bul fi nekk naan da ngay jubal affaire yi bul fi nekk naan da ngay jaarale mbiri yoon ñëwal encaisse ci liquidité bi comme nous seen nday ñi nga jouer lu Là, Nous ñu Là, d'accord commencé ay ñu nous sareet Nous nangam yu nangam commencé dugg placer ba am main mise ci lonage sur nako bismillah ñu commencé lepp li nga xamni Nous jël la jël bi ne day subventionné lonage day subventionné partenaires partenaire dem matériel yi indi mu jël ay milliards ñu indi mu jëndaat loolu Lonase jëlaat jëndaat loolu matériel mu jëndaat ko comme si Lonase ko jël moom ci entreprise am xaalisu Lonase lay jël ci entreprise am jëndaat loolu ba pare jaayaat ko day jël un milliard jox ko Abel si Abel si dem jënd mbir yi ñëw jaayee ko ko deux milliards moom ci entreprise am mu jëndee ko mu jël xaalis Lonase deux milliards jënd ko après jaayee ko Lonase dix milliards. loolu kan moo mu mën a calculer yéen mathématicien kan moo mu mën a calculer bénéfice bu laat ak ki nga xam ni mooy Abel si di yóbbu waaw borom XB dama ne laat mooy jël Abel si moo ñëw loxo na ko léegi dañu bugg a dem jëndi ay bobine wala dañu bëgg a dem jëndi nangam mu jël xaalisu Lonase ci boppam jox Abel jox ko un milliard Abel dem jëndi ji ko cinq cent mille million nous, avons 2 milliards. avons 500 millions, nous avons 2 milliards, mon, entreprise, mon, mon nous avons nous avons 2 milliards, nous avons 10 milliards, Nous avons 10 milliards. Milliards de milliards, calcul un peu compliqué. Donc, si 1 milliard, j'ai encore Abel, j'ai 500 millions. Parce que 1 milliard, j'ai encore Abel, j'ai encore 500 indi ne ne. 500 millions ñeu ci 500 millions la laa dóor 500 millions ñu tégué né muy premier 500 millions légui mu ne yow nga man mëna ko 4 milliards la job ko 4 milliards mom ci entreprise bu mu am ci bu entreprise entreprise am nag moom 4 milliards la ko jëndee mu dem jaayee ko LONASE ci boppam mu jaayee ko 10 milliards noonu lañ doon après ñu jël intérêt yooyu yëpp séddoo ko ñoom mu jox moom mu jox lu mu war a jox euh, Lat Diop mu jox ko rakkam muy shérif si shérif si def ko liquidité ñu def ko ci ay paquet ay liasses d'argent def ko ci ay sac mu yóbbu ñu woowante Abel ak Lat Diop mu euh, Lat Diop yónni chauffeur am ak garde corps am ñu dem récupérer xaalis bu dugal ko seen oto ñëw ñu compter paqueté ay ay milliards. nii la Lat Diop def Lonase ba mu torox tontu muy dem pour rafetal ginnaawam fay journaliste yi ñu bindal ko ay article dem leen article yaa ngi fi dem ba leen bindee Lat Diop rek Lonase ngeen xool fii gis naa ko ay Sénégalais ba gis naa ko feneen ak feneen xam ñoom dañuy copier coller gis naa ko feneen Lat Diop. ñu ne Lat Diop messi dafa defar Lonase dafa nangam fekk moom moo leen xaalis boobu mu sàcc la leen jox. gars yi nu ñuy def sénégalais yi nii loolu nañuy def sax seen journaliste si dañ leen di fay dañ leen di fay ñu yi glorifier leen ngandal leen defuñu enquête interne defuñu dara ñu yëkkati waa ji laa jóob fekk na lonage muy ràmm mu yëkkati ko def ko sangu ko defar ko solal ko yére ay jas neer lépp kàcc lépp te laa jóob mooy préparé loolu jox leen joxaale leen xaalis dëkk bi noonu lay doxee dëkk bi da ngay def say tooxi doona jiitu ci journaliste si fay leen ñu rafetal soit ñu noppi soit ñu bindal lu rafet c'est des génies en magouille barke alxuraan des génies en magouille même chose nag la Amadou comme ni ngeen koy wooyee <laughs> julde ba ñu naan ko euh, Amadou Bayal Ba ñu naan ko Amadou Bayal Ba ngeen naan ko Amadou julde ba Amadou Bayal Ba aussi même chose moo dama leen ci indil tuuti rek parce que dinaa gën a ñëw ci moom gis ngeen Amadou Bayal baax bokk nañu ëpp xaalis senegal yaram bi yëpp xaalis la barke alxuraan baayam ba bu muy faatu ba bu muy faatu baayam billahi fukki dërëm yoru ko fukki dërëm baayam xam nga doo nekk jeune ñu jox la ngay nekk imam gaa yi ñoom dañuy tàmbale ci papam bu magété nan papa papam imam l'on mais ça waay papam bu amé 15 ans newul imam papam bu amé 20 ans newul imam imam du liggéey imam du profession comme papam amul profession papam amul profession papay Amadou Julde Ba ci école publique la jaaree ba bu muy jeex bu muy jeex ñaari tali ci guuyga école ba nekk fofu la Amadou Julde Ba ñaari tali ci guuyga école bu nek école primaire fofu la Amadou Julde ba jàngee ba yoru fukki dërëm yaay yoru fukki dërëm barke alcorane du baye la amé du yaay la amé té bokku nu ñu ëpp gëna a riche Sénégal ñu gëna riche Sénégal terrain Dakar yi 90% moko jaay ba terrain yooyu amu Amadou Jules Demba moo jaay kan moko ko don jaay laaj len ma kan moko ko don jaay tayru sar moko ko don jaayal ak Farba Ngom dem leen boo leen demee ca Cices terrain yooyu yëpp ak tukkuleer yi fa ëpp xam kan mo len ko don jaay seen géwélu juddu mo len ko don jaay Farba Ngom moko don jaay loolu motax fofu mo moo ëpp parce que ñooñu ay tukulóor jaay jàmbaar lañu woon yoo xam ni dañoo dañoo doon nekk ay Gabon ay Congo ay nekk ci or yeeg nekk ci jamaa yeeg yooyu saa nekk seen géwél Farba Ngom di fa dem di ñëw ak nag moom dafa yàgg liggéeyal euh, moom Amadou Julle ba daa yàgg liggéeyal ak Farba Ngom foofu ngeen di dem noonu tukulóor yi fa ëpp quatre-vingt-dix pour cent ñi nekk si si foofu noonu nga xam ne moom mooy CICES terrain yooyu yëpp Farba Ngom 90 pour cent moo leen ko jaay si Cap Foire exactement am na ñuy ñëw di seede ne c'est vrai Farba Ngom moo leen ko doon jaay mooy jamanteer Gabon yeeg yooyu ñoom ñëw ko jënd ak yooyu Farba Ngom moo leen ko doon jaay en tant que géwél simple. yooyu yëpp nag moom ak Tahirou Sarr kan moo leen ko doon jox Amadou Diol ba moo doon xotti rek di leen jox ñuy jaay di ñëw bu ñu ñëwee paquet liasse d'argent liasse liquidité ñu compter wàññi ay milliards ñu teg. paqueté yóbbu loolu moo ko def milliardaire alalu Sénégal moo ko def milliardaire terrain jàmbur yu mu doon jaay moo ko def milliardaire multi milliardaire bokk na ci ñu gën a riche Sénégal dafa riche ba mënul dox dafa riche ba mënul wax day taaye la wax dafa riche riche riche ba gémmiñ gi fees tàpp ak alalu baadoo la ak alalu riba wax mënu ko du yëy di yàbbi dafa riche ba yambal sàcc rek ñëw toog génn terrain yi dagg jox gars yi ñu dem jaayi indi encaissé dem liquidité kese loolu rek la doon liggéey kese la doon liggéey foire ak tout ñoom ñoo ko doon jaay moo tax ba léegi gaañinam la Farba Ngom best gaañinam la këram ba léegi boo ginnaaw lagoon lieu de fréquentation la boo leen day na ngeen fa fekk Tahirou Sarr foofu la ñaareelam nekk am na ñuy laaj ba xam Amadou Diouf Débat est-ce que c'est vrai que am na ñaareel man wan naa leen sax mariage bi photo mariage bi xam nga affaire tam bëgguñu ci sori wan naa leen photo mariage bi. Mamita Kan toog muuru ñu mayee ko fële ca Mauritanie xanaa loolu jeex nay wax pour ñenn ñi nga xam ne ñoom seen bopp yi xamu lu ci ne. indi naa la ba indil la photo mariage am bu ko amadu Amadou de Débat di takk ca Mauritanie. mu hmm, photo mariage ba indil naa leen tegal leen am nañ seex seex yi jigéen kër googu mi nekk en face lagon immeuble boobu en face lagon moo ko moom ngandam maami immeuble ca kaw foofu noonu la euh, kii ne kii nu mu tudd waa jële ñuy ñuy jiiñ góor jigéen bu boroom xaalis boobu rek euh, ma fàtte turam fa la fa la luwe moom moko mom moom prête noo la ko prête noo la ko def moom moko mom Amadou Julle Ba moko mom en face la ko immeuble bu ngand bu ngeen gis bir ville moom moko mom fofu la jabaram yi nek fofu la benn jabaram bi nek bu ko djural cheikh yi jigéen mu ngi noonu immeuble Atlantique merci il a acheté un un appartement à 1 milliard merci beaucoup Diagne Ndiaye fa la deuk Diagne Ndiaye Mamadou Diagne Ndiaye bu nek ci sen mafia bi fa la deuk ci immeuble boobu Amadou Ba moo ko jënd ay milliards fa la ñaareelam nekk ñu am seex yi jigéen mais du leen ko woon fenn xam nga ay pater lañ naxkate lañ ñëpp xam Sonko ñaari soxna la am ñëpp gis nañ soxna yu so mais doo leen gis mukk ñaareelam benn bi rek ngeen di gis muy tëñëx tëñëx yi di wër di wër ndaalu ñu bëgg a tëgg wëndeel sénégalais yi. ñu bëgg a tëgg wëndeel Sénégalais yi même ñoom lu ñu am ci jabar sax duñ ko assumer kooku dina assumer Sénégal gérer Sénégal Amadou Ba bu munul assumer Sénégalais yi ne am naa ñaari jabar di nëbbu jabaram mais kooku nan lay assumer nan la kañ ngeen xaar mu assumer pour yor réew mi suuf la Mamita Kane baayam mi ngi Mauritanie yaayam mi ngi Mauritanie donc mooy palais bi moom dina soo moom waxuma dara de ne da ko bandum bi data parce que Guinée nga fa Mauritanie nga fa Sénégal nga fa lépp a jaxasoo nag palais boobu moom yàlla yàlla bu mu musa dem ba toll foofu palais ba moom yàlla bu mu melting pot boobu jaxasoo boobu kenn du xam lan la parce que mamita moom day lu mu tibb day yóbbu Mauritanie jabar ji lu mu tibb <laughs> Guinée la jëm waaw ah, kay ay juróom-ñaari maam Guinéen lañ ke juróom-ñaari maam ay Mauritanien lañ donc Amadou Diol Daba di ping pong nag Mauritanie du bàyyi dara fii kay tey tey ngeen dee dëkk ba kee bu ne saa yaataa yeetoo kee kee ne ko xoo oh, ko neto ko bandum ko ko Mauritania ke kee ne kee ne saa yaataa kenn du xam lu dëkk ba la parce que jabar ñaareelu boobaa day jóg moom ne Mauritanie lay teg woy Mauritanie jabar euh, euh, euh, Bello moom tamit jóge fee ne moom moom moom Guinéen bi lay teg sa yaataayeetoo kon chaque jour ngeen jour ñu àtte parce que kii day yeewu ne moom saa yaataayeetoo lay teg kenn ko man woy Mauritanie bi lay teg Amadou naa leen def leen daan calmez vous ke kenaa non mi waxtaadu ndoo ala mi waxtaadu ndoo kottu kottu mi waxtaadu ndoo kenaa ko ke tam ko saaga lakkalabash lakkalabash gassara marak kenan ko sa yatayeto kenan gassara marak mi waɗa ɗum dina mel ni tullek malle dina jaxasoo kenn du xam lu yàlla bu ñu dund lu mel noonu yàlla nañ ci yàlla muccal sincèrement loolu moom sa waay si dëkk boobu kenn du xam lu muy saf dëkk boobu dina mel ni tolleeg male boobu benn sénégalais du yëg boppam ci biir yàlla nañu yàlla muccal te musal ñu ci euh, lu mel noonu ñu ñaan ñu ko yàlla kenaan laxala baas gas saram bara kenaan ko sayaatayeto kottuma kot kottu kottu kottu solde baam wattaɗuɗo euh, amadou nekk fana waɗi seesa tan waɗi seesa waɗi seesa waɗi seesa tan waɗi seesa no no no no no wello waɗa ɗum ɗo waɗi seesa tan yàlla bu ñu toll ci niveau yooyu lée il yàlla bu ñu toll ci yooyu wa pap pap bi dina mel nii ngénte gu tass <laughs> kon nak wala ko seen jëkkër mën na do jabar ye ñom ki re yobu Mauritanie ke yobu Guinée yalla bu ñu <laughs> ya nak nag Sénégal torox ba ñëw am ab président yu mel non foofu yalla lañ ci yalla muccal hmm, kay na dess ci ñun rek na dess ci ñun même bu ñu reyante na dess ci ñun lillahi wa rasuli voilà donc ap sàcc la bo xamni Amadou dul débat

L200 la indi chauffeur garde ministère du finance et du budget 4 milliards la fa génnee bu muy waree def ak passation de service moom ak kii nga xam ne mooy Abdoulaye Daouda Diallo buñ nee suba la guddi gi wala ñëw midi midi midi du moins midi mu indi ay 4-4 L200 génn fa ay saagu liasse d'argent 4 milliards loolu boo leen demee ñi nga xam ne fekkee nañ loolu ñi ngi nekk impôt et domaine ba léegi histoire boobu ba léegi mi ngi fa fay coow. 4 milliards midi mu ñeu garé valeur 4 milliards la génne ci bureau impôt et domaine bu mu nekkee finance safurla finance et budget L200 double cabine 4-4 double cabine midi mu wacc fa mom Amadou Julde Bayal Ba 4 milliards la fa liquide liquide ànd ak chauffeur yi dem yoon le lendemain lañ ñeu def sen passation de service 4 milliards donc ngeen xamé ko nonou xam ni Amadou Diouldé Ba dinaa gën a ñëw ci moom ñëw ci ay jabaram si seen papa yi ak seen yaay yi dinaa leen indil Amadou Diouldé Ba jabar ja ca Guinée baayam ak yaayam ak jabar ba Mauritanie doom yeeg ñi nga xam ne ñu ngi jóge Mauritanie muy mu mu mu muy mamita kan baayam ak yaayam ak tout <laughs> voilà ñaare du ñoo xam ne duñ jaarandoo taal ay jabaram duñ jaarandoo taal koo xam ne amul fitu sax wane ni am na jabar ba am ñaar ba am ba jabar jooju ñaareelam bi jural koy seex rus na ko waxee yéen ñun nekk di fal nit ba pare nit kooku taluñu di àtte ay ñaari jabaram ñun tal lañ loolu yéen ñun dinañ tal ay nit boo xam ne amul benn responsabilité jiitewul ay jabaram ne day àtte ay jabaram war a jug dox réew mi di àtte ay jabaram parce que bu boobaa jabaram ba nekk lagon ñaareel ba dina ñëw ci immigol ba jabaram euh, Guinée Mauritanien bi day ñëw Guinéen ba ñëw ñu ñëw saa yaatayootu duppute gi di jaxase foofu kott euh, yu maa gi di jaxase foofu noonu euh, lu mu tudd gasara di jaxase di jaxasoo foofu kenn du xam lu mu mun mu naan leen wadee seesa wadee seesa donc ñun amuñu jot boobu amuñu jotu fal nit mu war ñu liggéeyal muy àtte jabar ya kenn an du ko fi nekk sa takk suuf ko ko takk kenn an nanga nanga parce que ñi ma wuleen sax boole ñi ma wuleen boole bokkuñu kër ànduñu duñu waxandoo kee ngi gauche kee ngi gi kee ngi Sacré-Cœur kële <laughs> ngi euh, Lagon affaire yi jax su tulle male moom nee na moom parcelle la dëkk te dëkkul parcelle ñaari tali la juddoo ñaari tali la juddoo jangé ñaari tali di foné wa parcel ñaan borom bayu imam mamu imam kan mo judd nek imam mam ji taxawalo taxawalo taxawalu eh, ba ba nek mak kep ku nek mak dem ci ci kep nek kemak ku nek mak dem ci jàkka man ni sama papa ngi ci jàkka juli, juli te bu muy julli bu muy julli la musa def mais sama papa bu muy liggéey musul dem ci dëgg-dëgg mosuma koo gis ci jàkkee sa mbaax bu muy liggéey di yeewu di xëy di liggéey nekk seen lekk di wàcc di ñëw talul jàkka day romb jàkkee mais tey paa bee dàq julli jàkka jàkk julli jàkk mu ngi yor kuréelam timis mu ne yollo solo ci dem da ngay fekk sax muy noddu allah akbar allah mu ne caay adduna mu ne kii mais paa yi yemul xam dañoo dañoo ragal dee de bu ñu commencé nekk mag nag ñëw nekk ay imam nekk ay noddukat nekk ay xolal bu ñu nekkee jeune wala di liggéey am doole taluñu ko jàkka ja la ñuy romb dem seen yoon. papa Amadou Ba musul nekk imam juddoowu ko màggewu ko yaroo bu mu màggetee la commencé dem ca jàkka ja comme nu sa papa ak sama papa nit ñuy màggetee commencé fréquenté jàkka ja ca ba doon naim ba mujjee doon imam mais juddoowul imam yarawul imam màggewul imam pour muy clair taxawalu gese nit ñi bëgg a fooye imaam fooye <laughs> ah mais c'est normal dama ne man de yi ba ma nekkee jeune di dund di dox sama papa doonul dem ca jàkka ja doon na julli nag doon na julli waxtu yëpp bu mu juddee ba léegi ci julli laa ko xamee julli di ko forcé mais dem jàkka tey mais tey retraité na jàkka ja kenn du ko fa jiitu day fomp jàkka ja di bale jàkka ja jiitu ja nga romb ko muy muy muy muy muy noddu mais sa waay loolu bu màggetee la karaw ga weex tàll mu xam ni fii dee rek a kese fi des mu commencé nag jël kii ba dem ca jàkka ja di julli ki kii léegi su ma ñënoo ñu bëgg maa tàggal borom maa papay imam ba kañ la ah moo laa borom bàyyi imam ba mbaaye mu mun noddu kañ la kañ la mun noddu kañ la nek kañ la nek imam gut bu mu demee ba la 60 ya ba retraité 70 dix ya, ci la commencé doon imam ah, ndax xamna li fi dess beretul du fi lalat lu mu dundoon du ko fi dundaat donc bu dem jo donc papa yi yëpp màgget yëpp dem ci djumaaje ja fréquenté xolal arrière bande bi 20 ans 30 ans ba xam doon nañ dem ci djumaaje donc doo leen fa fek yooyu mom ñun miin nañ ko do vraiment ko ñuy tag ay papa imam ak yaay imam ak maamu imaam moom caaxaani kessa la donc Amadou Diol Daba même chose la mais dinañ gëna a ñëw ci mom dinañ gën a ñëw ci mom Amadou jàppaleen ni c'est le plus c'est le roc en Rocancourt du Sénégal c'est le plus grand voleur au monde le plus grand voleur au monde Amadou Diol Daba sàcc bu mag la international yore ñaari jabar yu jegantewul laalantewuñ te du tudd seen tur du leen jege du ci wax bu ci waxee déedéet laaj leen ma lu tax premier ba premier jabar ja <laughs> pël fuuta ba kookoo leen gën a feebar kooku baay yaay kooku gën a la ko pitta <laughs> dem leen pitta kooku moo leen gën a feebar kooku moo tax ñi mawul tudd keneen ka kooku moo tax ñi mawul tudd keneen ka de Amadou Julde Bade boo ko joxoon milliard du tudd euh, euh, ñaareel ba <laughs> du ko tudd de te am na fa seex da boo koy tudd di tee yii ak a ragal jagar jabar jabar ja mm-hmm. ragal na ko de bili Amadou Julde Ba bu lay kii rek ne ko yow bili boo ko nee bili mu toogaat foofu defaru <laughs> bili ba ne ko Bili Ba nga ñëw Bili Ba moo tax de boo gisee bu Amadou Diouf de ba ñi ma ubbi gémmiñ ngi wax ñaareel wala am naa ak moom sax doom du ko assumé Bili Ba la <laughs> Bili dafa féroce de nee na ko bës ma la déggee nga naan ay am nga ñaareel barki dinaa lu dóor ba toog sa kaw. motax amu Amadou jul débat fu taxaw rek jarul nga ay Sonko ngi ñew ne ko bile ngi ñëw bile baa ngi ñew bile baa day taw waaw la la loolu mbuk miri taw xam du xam fu day deg ak ragal bile ba ñun dinañ ci indi ay president yi ragal sen jàpp Macky Sall sax ragalul woon jabaram loolu mu kenn loku mëna waxal jabaru Macky Sall yebul <laughs> yebul yebul Macky Sall Macky Sall tang na xayn tang na mbàq mëna xex day noqaat day xolal jabar ji yabu ko moo tax boo leen gisee jabar <laughs> jabar jabaru Macky Sall bi bu Macky Sall wax ne dama kii mu mel ni ku màndi naan nii mel ni ab dof yàbbul Macky Sall mais nan dinañ fi teg président bu bu bu sa jabar kooku nan lay jiite kan ñaareel di ko nëbb ñaareel bi ami doom nga koy nëbb ñi mu woo ndax kenn kese muy biliba ñu <laughs> dinañ la fi teg xanaa ñun baaxuñu ñun xanaa ñun baaxuñu dama ne Amadou fu mu nekk di wax bu leen ko Sonko corrigé foo leen ko fekk muy wax nee leen ko bili baa ngi ñëw bili baa ngi ñëw bili baa ngi ñëw bile gi bile gi ñëw kaw bile bile waa pitta la waa pitta waa pitta la waa pitta la yaayam waa pitta la waaw baayam ci chemin de fer yi la doon liggéey chemin de fer baayam chemin de fer yi la doon liggéey waaw bili bàyyam ci chemin de fer yi ñoom ba léegi seen waa ñoom pëlu Guinée la ñu wax waaw sa yaataayeetoo waa saa la waa pour muy clair ci nag leneen waxuma dañoo bon waxuma ay waa Guinée nangam ba léegi étiquette bi dama leen rek comme bu ñuy def bu ñuy def background check ku nekk ñu wax duñ fi fenal kenn duñ sosal kenn bi lii ba de père dinañ leen ko indil yaayam. ak baayam yaay baayam mu ne chemin de fer ba takk yaayam ca pita day leer étiquette wuñ kenn teguñu kenn nangam ak nangam mais dañuy wax parce que sénégalais yi foog ñu xam ñi nga xam ne dañoo ñëw taxaw ne dañoo bëgg leen jiite ñu xam seen papa yi seen yaay yi seen background check fu ñu jaar lu ñu liggéey kon ñëpp gis ni teg ñu ne papa Amadou Ba kii la yaay Amadou Ba kii la liggéeyul woon kii liggéeyul ñu xam ne kon Amadou Ba warul am li mu yor di génne di génne di génne ba xam ne ah kii milliardaire la kon lii yëpp da koo sàcc nangam am na jabar tel jam na nangam ñu indi lépp teg jabar yi jubóowuñu duñu laalante lépp ndax bili ba parce que nag lépp lañu leen koy tegal day leer naññ naññ rang dang fang ba sénégalais xam ñu ñu amal affaire day leer de waaw duñ leen bàyyil tarafatal ay ni day leer naññ naññ ku munul gérer jabar ñaar muno gérer réew ku munul gérer jabar ñaar muno gérer réew ku munul dekkal ñaari jabar ki dekk gos, ki dekk droite ñi mo ngay put boo fo taxawé premier ba nga taxaw ñi mo taxaw ñaarel ñaareel ba ba am sax ñuy ak ñaar koku vraiment ku la jox réew da bëgg sanku sànku ku la joxub réew da bëgg a torox ku munul gérer réew ku munul gérer say dom muno gérer réew ku munul gérer jabar muno gérer say dom. munoo gérer réew ku munul yedd ku munul ku munul éduquer say doom munoo éduquer say jabar munoo éduquer réew day leer